waay yow. non non promoteur bi amal problème bu 100000. léegi suba bu ñu tee ñu sama suba. booy Dakar man maa bëgg a bëre ak moom barki alxuraan booy Dakar kan la mujjee daan caatu ngéwél. booy Dakar xam nga ne man maa ko bëgg a dimbali bëre ak suba mën ngaa ñëw suba waaw daa suba gi la. suba suba gi la. yow xam nga ne damaa yéenu écrit ak sëriñ. yaa yo damaa yéenu écrit. xam nga xam nga cosaan mënu maa doon. 11h mënoo ñëw 11h. balaa mi ngi yëmbal lay bëri. waaw 11h bu mu jugee xam nga dama lay bañ a fàttali. yaa ngi ci diggi géew bi Bébé Sa ak Farou Diar Farou Diar lool Bébé Sa Kajoor mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw xool Bébé Sa Kajoor ak waane xool na muy lewaatoowee am na muy jëppee tànk ya eh Farou Diar na léegi Farou de lambul Farou Diar Bébé Sa Kajoor eh mais <laughs> diggante Sakka Dior Farou Diar Farou Diar li waatoo na ba mu nekk mu dagg li waatoo bi daw deltuwaat gannaaw Bébé Sakka Dior Farou Diar Farou Diar sëgg na ci bu suuf day ci bu dóor waaw eh Bébé Sakka Dior foo ne da koy dóor dóor fa dóor dëkk la woon fayoo ko tas dóor na ko dëbb ko na ko naax da koy plaqué Bébé Sakka Dior bañ na Bébé Sa Kajoor Farouja mu ngay rokkas mi affaire la de Farouja Bébé Sa Bébé Sa Kajoor Farouja añ Bébé Sa ma ngay fayu ma ngay dóor ma ngay fayu ma ngay dóor da koy jël ba jénn nañ kaa neex na woogul jeex lii neex na woogul jeex ñëwaat léegi

Farou Dieng Saka Bébé Saka Dior dem na arbre léegi ba ñoom ñaar ñëpp mbokk yi dem ba dellu si waat Khalil eh mais Farou Dieng mi eh agressif tey mu dee da koy won doom ba da koy daan Bébé mi ndeke ah li naan sa lambul lu mu koy def. Fawru Ñaŋ dafa bëgg bëre da ko bëgg déet déet déet déet génn nañu doxal eh, ñaari xale yaa ngay bëre arbitre bi sifle waat na Farou Diakh mbok yi moo ñu woon ginnaaw demaat na ardo ba dellu siwaat ak Bébé Sa Kajoor ñoo ngay xoolante ñoom ñaar ci biiri bët waaye mbokk yi booy xool kii de nga xamante ni mooy Farou Diakh xeex bi la gën a bëgg ngi lewaatoo ñoom ñaar Bébé Sa Kajoor cokkaas na léegi diggante Sakho Nior Kharu Niar na léegi dóor day ñëw Bébé Sakho Nior day ñëw de Kharu Niar xeex moom waaye xeexu benn Kharu Niar assuré dañoo daje ci suuf ñoom ñaar plaqué na ko plaqué da koy daan Kharu daan na ko Kharu dóor na ko duma na ko daan na ko Kharu Farou Diar daan na ko dóor na ko góor su daw jël ko plaqué ko daw ak